fan yu mujj yi ci réewum senegal nemeeku gi moo di faataate gu bari koo xam ne ñi ngi koy nemeeku di ay nit ñoo xam ne dañ leen di jam wala sax fetal askan wi nekkee ci réew mi ku ci nekk ak xalaat bi nga ci amee rey yi lool bu fekkee da nekk xale di def yenn acte de barbarie say parents bàyyi la ci nga màgg soo màggee tamit yow da ngay fokk ne loolu moom mooy continuer. rey yi nga xam ne ni teguwul fenn ci lu dul topp sa naf si topp sa bakkan rek fekk doomu aadama bu yorog njabootam di liggéey di wër lu mu leen yore boole ko léeg-léeg sax ñi ci baree bëri ñi ñuy rey ay soutien de famille la ñuy nekk. ñoo xam ne ni responsabilité ba newoon ci seen mbagg mi amul kenn ku ko mën a remplacer ñu jékki-jékki ne leen xatit rendi ñu tëj leen benn 15 ans 10 ans. ñu rombaat nii seen ak njaboot di dox ci réew mi te ñu réewum jullit la ñu nekk loolu man franchement man Abdoulaye Kane xasida nanguwuma ko jiw faat nañu nit ci tayeef way laa loo xam ne ndogale ci loxoom nit la jóge sax boo ko déggee te di nga tiite sa fit di dina rëcc dina di nga toog ay at doo ko dégg sax. sëriñ bi moom jàpp ne loole bu amee bokk na ci li ko sabab moo di ñàkku yar gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci ndaw ñi ak ñàkk royukaay loolee bokk na ci liy sabab jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy faral di am ca googale ka wàllu kër yi ci parents yi war nañu gën a yaraat seeni seen njaboot lu mel ni dëkk Touba nga xamante ni c'est une ville religieuse euh, ku mel ni Serigne Touba nga xamante ni référence la ci wàllu boobu noonu jàngale na lu bëri ci wàllu yar ak ci wàllu euh, tolérance am yërmande ci doomu aadama donc bu fekkoon nit ñuy gëstu njàngale yu mag ñu baax ñi nekk ci réew mi seen parents yi di leen ci teel a bu ñuy ndaw danañ tax ba yenn yi duñu duñu duñ ko mën a def. yar googe itam soxna si jàpp ne bu njëkk ni nga xam ne noonu lañ doon yare xale yi ak léegi am nag wuute goo xam ne am na ci di gën a ñaax itam waaye jur yi ngir ñu gën a jàppale ndaw ñi gën leen a bu baax. li am fi mu nekk nii moom wax dëgg yàlla ah amul woon. fi ne xanaa xale yi ah ñu jàng yar ak teggin am kilifa am kilifa di dégg seen ndigalul kilifa di rocc ñu baax ñi. xale yu ndaw itam mu mel ni googalek seetlu tam moom la ñu amee. parents yi ku ci ne danga cee war a jëkk te xam ne yow soo juree sa doom danga ko war a teg foo xam ne fu yoon la idi éduqué ko boo éduqué boo xam ne pour yoon pour en tout cas ëllëg ndax doom doom boo gis nawle la yow yaa koy teg teg ci yoon xamal ko ëllëg lan mooy yoon waaye soo ko seetaanee jaaxal boo xam ne doo xam foo koy waxee ëllëg ba pare da ngay sonn sonal sa papaam sonal mbokk yi sonal dëkkandoo yi. sa digganteeg sa borom sa wareef sa digganteeg sa jaboot ak sa wareef sa digganteeg mbokk sa doomu sa moromu doomu aadama waaw. loolu moom moom moom moo ñu rëcc. mun a ji nag rey yu bari yi nga xam ne rek ñi ngi koy nemmeeku ci réewum Sénégal soxna si moom jàpp ne saafara si mooy ku ko defati ñu tëj la sa ngiruk dund. man daal solution bi li ma si gis mooy peine de ku rey nit ñu condamné la xalaatam boobu itam daanaka sorewul ak xalaatulaay laay mile jàpp jàpp ne nag bu ñu àttee woon àtteb lislaam yile mën na fee ñaar loolu alxuraan ko njëkk a wax ci maanaam képp ku rey dañ laa war a yàlla na kenn ëpp ko yërmaande ci jaam ba tax que bu ko waxee bu ko waxee rek lañ waroon a def mooy que ne ñu jéem koy exécuter loolu noonu moom moo waroon a continuer ci réew mi. ak lu mën xew fan yi nag seddu gi moo di ay rey yu bëri yoo xam ne dañu koy nemmeeku ci réewum Sénégal lu ci bëri nag di ay ndaw tey nag googaleeg rey lal wut ci dal na lu dut ak tayeef